citoyens sénégalais yi manifesté wuñ dara amul opinion bu ñu manifesté ay bandi ñooy génn rek buggu bloqué réew mi te du dëgg. lii lépp tax ba force vive yu F24 fas yéene amal ab ndaje mu rëy ci njeexitalu ay bés bi lee. moo tax ñuy woote ndaje bu am solo képp kuy sénégalais génn. le vendredi 9 à Dakar, place de la Nation. noo nekkoon force vive yu f di sàkku ñu yëkkati barricade yi nga xam ni teg nañ ko ci li wër këru njiital Pastef di Ousmane Sonko di xam ne itam ni noppi nañ ngir jàmbaarloo ko président Macky ngir mu bañ a laaj ñetteelu mandat ci bopp réew mi.